Sans Limites TV votre site d'information mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax di leen ziar amaat nañu mbégte lool àndaat ak yéen ñu ngi fii nga xam ne moom mooy ci ASECNA kër gi ngeen di gis nag moom mooy kër ñoom euh, Mama kundul xam ngeen ni depuis dem ak léegi dafa réer ay mbokkam ñoom itam ñu daal di jaaxle nelawuñu benn yoon euh, police nag def na liggéeyam ba daal di gis ki nga xam ne moom mooy euh, Mama Koundoul ba ñi nga xam ne sax ñoo def biire ñaawteef mujj nañ leen jàpp fa fee ca Sàngal Kaam dëkkandoo yi am di jàmm ñoom itam ba ñu yëgee bi la information ñoom ñëpp dañoo ñëw fii nga xam ne mooy ci kër gi ngir rek ñëw xool ki nga xam ne moom mooy Mama Koundoul jamono ñuy àddoo ngeen ñu dégg nag moom Mama mi ngi foofe nga xam ne moom mooy ci loxo takk der yi pour ñu daal di def seen liggéey ñi def ñaawteef bi nag jàpp nañ leen foofee ci Sangalkam depuis ci subaak léegi nag ñu ngi dégg ay information naan kii di Mama Koundoul dafa am doom amul doom benn yoon te kidnappé wu ni itam li nga xam ne mooy doomam moom Mama Koundoul jamono ñi àddoo ngeen ñu dégg mi ngi foofee nga xam ne mooy ci loxo takk der yi ñu ngi ci kër gi di ko xaarandi. famille mooy yaayam salaamaaleykum yaay boo ñu ngi lay nuyu. asalaamaaleykum wa rahmatulah. gannaaw bañ a sant yàlla subhaanahu wa taala cant gi jóge ci moom subhaanahu wa taala di ko delluwaat ci moom subhaanahu wa taala di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di santaat sama ñaari waajur ak samay waajur sama borom kër ak samay doom ak samay mbokk samay xarit samay am di jàmm ndax subaa métti woon na lool ci sonn lool waaye nag loo bokk ak ñëpp du métti loo bokk ak àddina metti métti te bi ma tare maag àddina yëpp ko bokk ndax kenn desul ñëpp ma woo sama dëkkandoo yi ñëpp macha allah am jàmm ñu di ko sant nag di ko delloo ci moom bi ma amee dama ne lépp teg naa la ko suñu borom waaye maag sama mbokk ak sama dëkkandoo ñoo ko bokk ba yàlla mi niit mu niit ko ñu xëy na ma feeñ na kon loolu sant yàlla la ñu santaat yàlla bu baax a baax a baax a baax a baax di sant nag ñëpp nag képp ko dëkk ngi rek ñu lay sant mm. képp ko dëkk ngi rek ñu lay sant ndax lu am rek say bokk la ci jàppale te lii am nii tey lii am nii tey ba nga mën a ñëw fii ay mbokk ñoo ci jàpp ba nga mën cee jot ndax bu doon ay mbokk jàpp ci ko doo ci mën a ñëw kon ñu ngi lay sant bu baax di leen ñaan yàlla yàlla dimbale leen seen liggéey barkeel ñaan yàlla mami yàlla na ñëw ni ñëw ci jàmm yàlla na ko bàyyi xelam bàyyi ko amoon nañ ci yaakaar nag amoon nañ ci njort ndax moom ci boppam ay waajuram ñoo baax moom ci boppam xale la mais xale boo xam ne du tricher xale la boo xam ne dëgg rek lay wax xale boo xam ne amul benn ñaaw njort xale boo xam ne dégg na ndigal li jafe ci ñi jafe ci jamono tey ji mooy dégg ndigal lu ma la wax mën na ci moom du wax lu amul def lu amut man maay waajuram maa bokk ak bay ndey ak baay wañu ko sama doom ji góor ñëw jël ko indi ko ci kër gi waaye lépp man la lu ma ko tere mu bàyyi lu ma ko sant mu def. Eh, mooy ñu ñëw dooguma la sax mais dañuy ñëw si par rapport ak euh, fan la feeñee ak ban heure lañ leen wax la feeñ balaa ñuy ñëw si nan la nan ngeen jékki-jékki rek gisoo leen ki ne mooy. macha allah xam nga xam nga moom dafa dafa gënoon la altine diggante 9h 10h la ma doon doxantu ji biñ toogee nag ba midi gis ne boo olof a koy faj mu xam ne boo nekkee jigéen bi ñaare dañuy jàpp sa ndigg di jàpp di jàpp sa yaram pour mu yàlla may la dafa la jàmm biñ toogee nag ba 6h gisuñu ko. ba sept heures gisuñu ko ci lañ jéem nag di di coordonner nit ñi di wax ak nit ñi yàlla def ñu jamono ñu fexe moom bi mu yeewoo ndeke moom bi mu bi mu doxante ba wàññeeku rek moom sentir na nii lañ ko def yaa ngi dégg xamul lifin da ngay nelaw xam naa ñàkk na bi mu nelawee nag fekk ñaar ñu escorté ko noonu di koy dugg ci oto mu daal dem nee na bàyyi fi ma dugal mun ma laa fan la ci néeg daal néeg bi daal terrasse la amul nag fenêtre bunt rek la am ah xaw ma nag ban heure la en tout cas moom daal dix heures la génn ci kër gi comme xam nga digg mën naa la diggante dix heures onze heures la waaw xam naa li may wax rek bi mu génn huit heures passé na bi mu génn huit heures passé na ci diggante boobu la léegi nag bi ñu ko jàppee ba mu nelaw ba yeewu mu xam ne na mañ fi ma indi indi mu fi sama sago ci lañ ji moom fexe nag woo ko téléphone mu xamal na moom man bàjji man fi ma nekk sama sama sago indi mu fi ndax mun ma laa xam ban mun maa xam la xam naa ne daal ma dugal nañ ma ci benn néeg boo xam daal terrasse la fekk mu fi kenn kenn fekk mu fi ma ne ko ñi la ñi la fi ñi la ñi la la ñi la fi dugal ndax xam nga ay ñag la olof mënuma daal olof la ñuy làkk olof daal la ñuy làkk waaw ma ne ko dénk naa la yàlla dénk naa la yàlla mi nga xam ne moo la fi dugal yàlla la fi yàlla génnee ci loolu la. boobu léegi leen. après après ginnaaw bi nag ci lañ wax ak commissariat pour fekk dem nañ ba ba indi ni ñu koy waxatee téléphone bi localisé nañ ko localisé nañ ko. dem nañ fii ak bi nekk fii léegi nag biñ biñ jotee noonu wax ak moom ci la commissaire bi ma man nañ ko jox xale bi après moo wax ak xale bi yaa ngi dégg de mënu ko amal benn problème mënu na xam ñuy bu leen ko man dinaa def ay samay démarche mm. mais xam nga ginnaaw lundi la te démb la a jot kenn yaa ngi dégg ci lañ nag nag buñ xëyee tey léegi nag moom fekk nañ wa waxoon nañu waa Sonatel waa Sonatel ne bu ëllëgee il faut ngeen dem police ñu mm-hmm. joxe benn boo xam ne mooy war na yomb suñu liggéey comme ça man jox liggéey mais xam naa bi sama doom bi xëy nag dem pour buti këyit boobu ci li yàlla mi dogal nag mu dogal ñun ñun sama doom bi góor bi dem gis ko yaa ngi dégg kon dañ ko sant yàlla. fan la ko fan gisee. ah xaw ma na fu mu gisee ndax man moom ñëwagut. waaw dara amu ci. dara amu ci. Mhm. gis nga nit suy wax day wax lu mu xam. Mhm. kër gi fi ñun ci kër gi. Mhm. génnewul leen suñu làmmiñ parce que xamuñu ko ci moom. dem na doxantu ci rek. mais heure bu bëggee wax te li ngay wax leerul la il faut nga wax lu ko rek la safaanam xamuñ si dara de dara jotu ko amul benn métit amul benn naq dafa jug doxantu rek jigéen ñi biir yàgg naa doxantu ginnaaw dimanche moom doxantu fu tool mu ne kon na xëy doxantu rek lii rek la de mais amul leneen dara amul si booy wax da ngay wax li nga xam ndax xam nga léegi li problème bi mooy ñu ñu xalaatuñ looy wax ci suuf da ko ci bàmmeel suñu suñu borom moo ñu tiim moo ñu yor yow wax yaa ngi wax sax mais xamuloo balaa kàddu go yeeg ye la yàlla jëmee kon waxal loo xam waxal lu leer bul wax lu amut bul sos mais waxal li nga xam ne soo ëllëgee soo wéete sa borom nga xam li nga wax dëgg la dara da laajul ñu kenn dañuy ñun ah, ñun diggante bi sax lu leen dégg nañ ko ci mais dama neen laaju ma leen dara yéen daal ku leen woo di wax information nekku ñu xamuñu dara neen dara bu leen ne ni bu naa la ndax ñi dem dem nañ te dem na bu ñëwee lu ñu wax nga xam ne mooy information bi mais ñuy ñuy toog fii ci biir kër gi te demagu leen fenn bu leen ay wax ku ne woo téléphone nee na nee ko xamuma ci dara mënuma la ci dara ne raccroché su bëggee wax kay raccroché mu jeex tàkk loolu rek la waaye ñu ngi sant yàlla baax de di sant suñu mbokk yëpp nag mbooleem ku nekk ci diaspora bi ñoom ñi woote nañu ngi ak ndakaaru kenn desul góor a jigéen mag a ndaw sama yaay ngi nii mook sama yaay ñoo bokk ndey mi ngi nii mag la waaye dem ba léegi fi lay yenn ak samay rak góor a jigéen mag a ndaw kenn yal na yàlla fay àdduna bi yëpp not kii si a tuuti na bi ñu nekk ma ne la ñetti koñ yëpp kenn desul góor ak jigéen maa ngi ndaw kenn desul ñëppay ñaan léegi nag ginnaaw ñaan na taala taala lañ ko yoxol yàlla delloosi lañ ko ñu dañuy sant yàlla cant goo xam ne nag wallahi azim man mi nga xam ne man maa jur jëkkëram bokk baayam ndey ak baay jur ko mun maa xam cant gi sax fan laa koy commencé ak fi mu koy yem yàlla rek laay bàyyi sama bopp moom mi nga xam mën a sant la bopp wax dëgg yàlla ak sama mbokk yëpp. jë jëkkëram ana moom lan moo. lan taxawaay la ko yëgee ana lan la. rek mu ne ma yaay dellu ci loxo ci yàlla. dellu naa yëpp ci yàlla yàlla moo ma ko joxoon yóbbu na ko yàlla ko indi ndax nag mën naa am yàlla dañuy natt ba xam ñun suñu gëm-gëm fi mu toll mooy maman Koundoul maman dama naan ñoo bokk ndey ak baay parce que papam ak sama yaay ñoo bokk ndey ak baay te moom ñun ñoo ko yar avant muy sëy ci kër gi ci kër gi la yaroo kon kooku suñu lépp la waaw donc soo mënee rappeler li nga xam ne mooy histoire bi ak lu dal seen famille nan la demee ak ban heure bañ leen ko wax ak ëmbam bi euh, tudd ñaata ñaata weer si si la toll. waa li dal suñu famille de tiis boo xam ne duñ ko jooy kenn dañ naan yàlla moo ñu ko teg ki ko ki ki ko ba lii yëpp am bu soobu woon sunu borom du ko am ñun ay juddu lañ dañ koy delloo ci yàlla. mën nañ ne huit heures la fi jóge man mii rek la tàggu fii la ma fekk ma ne ko nanga fanaano yaa ngi tane mu ne ma wax maa ngi tane mu ne ma xaaral ma doxantu tuuti rek mais comme ñun tàmm nañ heure buy doxantu leer na sama rakk ji perm bi ci kaw lay def ni aller retour wala mu yéeg ci kaw mosul génn ci biti heure bu daan génn jëkkëram moo koy génn kon moom tàmmul di génn sax ci biti waaye luñ naan la war a am tay am bam ne ma man maa ngi dem xaaral ma doxantu tuuti dama yaakaar day yéeg ci kaw comme d'habitude loolu rek laa foogoon buñ toogee ba 9h sama yaay ne ana maman mu ne gisuma ko mu ne ah naaj tàng bi kenn du ci doxantu fekk na woon na sama benn rak sama doom sax awa li ko laaj na ko ndax yeewu ngeen man ma ngi ni ci yoon maa ngi gàddaay donc xam nga kon dem na fi muy dem bay retourner li am ci ginnaaw nag xamuñu ko mun naa ne daal tey la ñetti fan ci lañ dégg rek ne feeñ na di daal lañ ci am. bi am na neuf mois yu mat sëkk ndax mën naa ne ba mu fiy jóge mi ngi toll ci waaw loppatal loppatal mooy jigéen bu tolloo ci période boobu ndigal day metti mm-hmm. donc da ko fanaane xëy sangu